jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen a nuy maa ngi fi ak ki nga xamante ni mooy Lamba Lock bu waay euh, xanaa ma bàyyi ko mu nuyoo ñu wéyal waxtaan bëgg nañoo waxtaan ak moom nag ci combat Balla Gaye bi ndax gis naa ne waa Géejawaay am nañ ci lu leen metti surtout moom mi nga xamante ni nii moo nekk euh, équipe Papa Kane Papa euh, ma bàyyi ko mu nuyoo ñu wéyal waxtaan Lamba Lock nuyu naa sëñ bi fay naa la yow ndaanaan gu mag gi yow mi sulli làmb yaay ndaanaan ndax li yombul daal waaw nekk si làmb bu doon làmb ku si yàgg ami béjjën man bu may ñëw dañuy xaal te képp kuy supporter làmb boo xoolee da ngay xam ne waa ji xàmme naa ko Balla Gaye ñun ñoo ko yar fii école bi mu fi bëre bu weddee lii jaww xam na si dara ñeneen ñi xam nañ si dara mais bala nii la ko yàlla bëggee tey defe ko noonu mais bala si si jëmi boppam laaj na waat defaraat waaw li mu doon si moom na ko xool mais Balla laaj na defaraat. bi ngeen yéen a andi Balla Gaye bi Balla Gaye dugg see stade bi. li tuus naka nga gisee Balla Gaye bi mu tuusee balaa ñu ñëw ci biir géew. Balla bi muy tuus boo ko xoolee da nga naan du daanu ba si biir géew bi bi ñuy sumeeku boo ko xoolee da nga naan du daanu yow mi seetaan te gëm yooyu da nga naan du daanu mais man Balla bi ma ko xoolee sonné li Balla Bombardier def si ginnaaw Balla def ko si ginnaaw ak li Bombardier fin si si cat li. balaa balaa may ñëw ci làmb ji damay ñëw ci préparation mystique bi parce que gis nañ bala li mu andi ci butéel bari na. ñu gis Aziz mu ñëw dugg si ci biir géew bi andi bangam toog lu kenn musul gis si làmb Aziz def ko ci biir géew bi ñu ñëw préparation bi yàgg ñu gis fa ay baabooy gis fa ay Aziz gis fa ay ay ay Ndiaye gisuñu fa benn mbër la moo waral lool. tey tey gis naa si làmb sax man loo xamante ni tey laa ko mos a gis mos ngaa gis ci mikaay guy tàkk. mosuma koo gis. côté Balla Gaye laa ko mos a gis man te man commencé seetaan 99 laa commencé seetaan làmb tey laa mos a gis ci mikaay guy tàkk comme sappoor. la moo waraloon loon bi. ah ñoom ñoo xam loolu ñooñu seen wàll la man làmb laa xam mystique xam ma ko mais tey jii yàlla moo fi ne xoolal Aziz Ndiaye li mu def lépp te daan nañ ko wala daanuñu ko. daan nañ ko te tey jii yow am na noo doon jege mbër mi ñu ne la bul ko jege pour yow da ngay daan da nga koy daan affaire yi il faut ñu gëm yàlla teg mystique bi ne tamit tuuti du dëgg ñun ñëpp ana ñu doon paa yi est ce que mën nañoo takk mystique ba daan paa yi mënuñoo takk mystique ba daan pourtant xam-xam bi mi ngi fi carte mémoire yi ñu ngi fi mais boo gisee li tax mbër gën a sonn mooy mystique ko sonal tey mystique bu ne la bul nuyu sa yaay da jaral na la sax doo ko nuyu lu ko fi jar dara jaru ko fi sport bi laa la mën a wax wax la si mais wàllu mystique moom man du ma si dox du ma si wax. léegi bi baal Gaye simee ko nga gis état de forme am gis état de forme Bombardier naka nga leen jàngatee. nga baal ma jigéen sax boo ko doon gérer ba am ak moom dara pour nga amaat ko day yomb man falaa ko constat mais biñ summeekoo rek taxaw xam naa ne bombardier bi buñ ko daanee da ko neex. man la da gis ne bombardier dafa pare. dafa pare dafa bombardier bu amee Balla Gaye day wér. bala Gaye bu amee Modou Lo day wér. Eumeu Sène bu amee Balla day wér. mais ku si am keneen commencé ndambelu. da nga gis ne daal bombardier biñ ne ko Balla Gaye dafa pare waajal ba ba noppi bala Gaye biñ ne ko bombajee dafa xaw a def kii rek ñëwaat taxaw. waaw Balla Gaye ak bombardier kan moo njëkk pare si problème mystiquement. Bombardier. Balla Gaye li mu yàgg temps bi mu yàgg nii liñ ko dagg si xaalis bu ko fayaatee mystique bi kooku joxoon ko benn waa yàlla buy yalwaan sax mu ñaanal la est-ce que gënu ko man boog bu doon mën a. mais arbitre bi sifflé Balla Gaye taxaw taxawaay bi yàgg te ñu gisoon ne Balla gay bu arbitre sifflé day dox dox day dox jëm sa kaw mais mu dem ba ci naan ko taxawal ñu bëri bi nga gisee loolu ci làmb sa xel xawul tey. Bombardier signature bu njëkk balaa lay may Bombardier bi mu ñëwee da ko bala mu ne ah mu ne ko ñaari question moo ma indi si làmb ji bu njëkk ba laa lay wax de koo daan di nga ko wax heure bi nga koy daan beneen bi ko yàgg nga ne ko ñañ teg suñu reliquat yow pare nga pour heure heure bi ñu teg si wala temps bi bu ma daanee ñu teg si Balla Gaye bi mu paree li mu ko tontu mooy B0 def ma ne kon sa waay ñàkk nga. yow boobu la sa xel commencé tee. boobu ba léegi si signature bu la rawee bëre ba raw na la. nit na muy waxee jëfewu ko waaye na muy na muy doxee moom lay jëfe te Bombardier waxoon na càndum mu ne ah mu ne ko indil bi nga fooy ma wax la lu dul deñ contre Tapha Tine de mu ne waa Thiès ta waa waa Mbour taal nañ samay tiset baal naa leen waaye ëllëg dinaa jëlaat roi des arènes indi ko fii bu Yékini bu la nee du daanu waxul lu am dinañ ko daan ma daan ko ko daan jël roi bi. bi daane daanee bi bi Yékini daanoo année boobu Bombardier moo si gën a niil Tapha Tine ko mujjee door amul victoire Balla Gaye ne daan naa poids lourd yëpp naa dem si Bombardier settali ko ma ne ko mbër fas du geesu oto du ku koy dawal doo geesu kon boo nekkee si raay bi bul geesu xoola déglu wuñ ma sax si réunion bi de dañoo jàpp ne làmb mi waaye kii est-ce que mi nga waxee boppam mais gis nga ba mu demaatee dañ koo plaqué nu gaaw luñ musta daane Balla Gaye plaqué bi muy ñëw ñëpp fattal plaqué bi lañ wax mais bala looy bëree lañ ko war a wax. woo ñu ko wax looy looy défendre. Eh, nooy défendre fottal palaake bi Balla Gaye kan moo koy conseil bëri Aziz Ndiaye Balla Gaye mi-temps mi bëri Aziz Ndiaye lan la ko mën a dolli si mi-temps bëri nañ waxante li fi ne bu jël lépp moomoo lépp yow nangul nañ la bàyyi ak Balla Gaye këram ak lépp ak mystique beeg lépp mais bu contact bi jotee ba mystique bi jor ba corrosé yu naaw lan nga mën a conseillé ba Aziz Ndiaye fu mu takkee ngembu ëpp ma xaalis la def dugg si làmb ji bu waxee ñu dégg ko ndax xaalisam mais bu doon ku yàgg si làmb ami béjjën moom Aziz bu may ñëw day xaal mais premier chute bi jël am na wala jël amul. waaye première chute bi la jël bi gën a leere boo bëggee dégg dëgg laa wax de kuñ bañ buñ jaayante Balla sunu mbër la ñoo ko moomal sunu bopp mais boo jaayee nit rek doo nit Bombardier xanaa du julit moom it wala dëkkul senegal ah, waxal rek Bombardier mi ko daan ba pare bu ko neexoon bu nee du site amul mu ñibbi est-ce que lamb ji du yàqu mais dafa ñëwaat gore xam ne ñun ñoo bokk Sénégal ñoo koy defar ñëw taxaw si lim moom. man Bombardier démb bu ma doon wax naan mention spéciale ci làmb ji Bombardier laa ko jox. ndax daa ñëw démb wéet ci làmb teewul mu def li mu war a def. ba daan ñu ne ko da ngay bërewaat mu leer ko ni ñii ñu ay waay xoolal biñ génnee saako yi dañ ko waroon a avertiser moom Balla bëre bi jeex. Ah, foofu laa bëggoon a ñëw parce que am na quatre avertissement ñu korante ñoom ñaar Balla daw génn. mais avertissement amul. ñu continuer di. arbitre bi daw responsable. Siteu Siteu waaw parce que daa bëgg a lu neex gars la bëgg mais na xool ne Bombardier doomu aadama la te Bombardier xañ na ko fële sa saako ya bu ñëwaatee bii da koy avertir mu jeex moo xam parce que bu doon Balla Gaye la est-ce que gars ko nangu. mais Bombardier dama ko gis dem ak beneen méthode moment boobu loolu amee quatre avertissement yi am Balla Gaye waroon ak ak accélérer lamb ji accélérer ko Bombardier taxaw ci digg géew bi arbitre bi sifflé Balla Gaye di liwaatoo Bombardier du nju. dama la ne Bombardier si jëmi boppam kuy ngemboo dara bokkut ak kuy ngemboo ñaari yaar est que dégg nga ma. maa ngi lay dégg bu baax darab bokkut a gone yi boo leen tëjoon si kaaf di leen yafal sans entraîner buñ génnee Bombardier ak Tapha Tine leen ëpp doole. moo tax ñooñu boo leen amee il faut nga ñeme xeex tak ay protestant gis na Balla li mu jàng volume nii jàngoon rapidité ko gën. waxal dugg si gàr bi tooñ ko ñaari tooñ jéen Bombardier mais est ce que warul woon xeex ak moom. ba Bombardier perte équilibre mu daw jël ko mais ponkol bu toll ni Bombardier nga ñëw rek jàpp wéeru ko est ce que dina mën a yëngal bomb. waaw Balla Gaye boo gisee caxabal yi muy caxabal mooy génn si làmb ji la bëgg. yow caxabalu ñàkk pexe la waaw yow mi seetaan sax war ngaa xam ne lii daanul Bombardier Bombardier bi ko Balla Gaye caxabalee fi mu taxaw jugewu fi daa dem jàppi si latéralu ngembale xam ne kii mbootkat la xoolal daa dem jàppi si latéralu ngembale xam ne kii mbootkat la bu jàppee latéral bi du bouger du yëngu mu feree na ko foofu gis nga bi mu ko brouetté waaw yow boobu arbitre bi bëgg lu baax waaye brouette la ko def mu mel ne cinq cent cinq waxal nañ wax le fi ne Bombardier sénégalais la comme ñun Bombardier ñëw dimbali may ñu combat bi mu àgg ñun ñoo far ak Balla Gaye dëkk moom yor ko di koy entraîner mais est-ce que gis nga ñu ñun. làmb boo mbër boo amee xaaj. loolu xaw na ma ci jaaxal parce que waa Géejawaay gisuñu leen ci làmb ji benn yoon gisuñu ay Lac de Guiers gisuñu ay ay ay ay mbër yu ci bari kenn tegu leen bët ci làmb ji. Balla Gaye est-ce que may na leen opportunité pour ñu mën a ñëw foofu ak Aziz Ndiaye est-ce que boog euh, tënkuñ ko lu bëree bëri. xam nga li gën a ne xam nga li gën a métti mbër mooy mbër bu amee xaas rek borom xaas lay àndal. njëkk si mbër xul nga jariñu si mbër yu bëri ñu bëri découragé nañ dañ naan mbëri ay jaam lañ xam lu ko waral comme genre yi da ngay togg say bool ba mu neex añkat yi ñëw di añ mbasin la ñuy doon añ añ bi waa kër gi nga toggal añ bi duñ añ. te ñoo siy sonn xoolal ñaata booy ñoo des esaat ñii gaañu ñi scooter laa leen est ce que Balla Gaye seeti na leen xamul ñëpp. mais digganteem Balla Gaye ak waa Géejawaay est ce moo ngi tax ba léegi. non non moom mënumaa wax si ay digganteem ak waa Guédiawaye mi ngi da tax moom la xam. parce que dama leen dama dama cee gisul kenn ci biir stade bi ci mbër yi. ñoo jotiwul si moom. Balla waxagul ak ñun parce que jotiwuñ tey jii Balla boo ko jëloon tëj ko fii teg ay gémi si buntu kër gi tey kan mooy dugg teg fi koo xaye xamuñu ko kan mooy dugg mais boo ma fa tegee man xam naa la boo ñëwee ma ne la duggal mais boo bëggul kenn dugg dangay jël ku kenn xamul nga teg ko fi moo tax duñ ko joti. mais ñan ñoo def loolu. ah mën naa am estafam la. mais bu ko dee nii lay demee baaxul. staff bi ay Boucher la Aziz Ndiaye Baye Ndiaye ñoo ñooy staff bi. Ah, Boucher fu mu toj Boucher fan la toj. waaw kese du lamb du leneen te lamba tax ñu xam ko moom Boucher Boucher ñoo ko yoroon fii stade marché Ndiarème ci yoon la sax mu ànd ak moom moo xam ñoom ñoom la mais ñooñu ñëpp fan lañ toj Aziz Ndiaye ban la lamb la toj. yàlla moo ko may bësam mu yor xaalisam di ko defar mais am na fu lamb yi toll Aziz Ndiaye bokkul. na ko jox ay entraîneur am ñu coaché ko na ko booy kii il faut nga tooñ ko xeex ak moom loo am jël. mais dañoo gis euh, bi ñu mitaawee gisuñu mbër daw dugg ci géew bi ñu gis Aziz Ndiaye moo daw dugg ci giw bi mel ni ku koy conseillé. foofu laay wax ak yow ma ne la Aziz Ndiaye est ce que foofu rëram la ana entraîneur am. lamin Lamine a nga foofu lamin Golo min foofu lamin ñëwoon taxaw sax man laa ma xam ne ah ah Balla jox na Lamine cëram mais lamin fa mu toog ñemewul a jug sax. pourquoi Balla mooy man boobu bu ma ko doon coacher comme ni may waxee ak moom rajo nii laa ko koy waxe man fayoo ma moomoo ma su ma la waxul dëgg bu rëcc jotee man ngay xalaat kon naa la wax dëgg fii àdduna bi dëgg la Sénégal ku ne neexul yow yaa soxor mais neex na ba dee yaa ngi ni ñëw indiquement xool ku mel ni làmb nga jox mi koro kon ku ne neexul est-ce que da ngaa waxal fii boo amee ñaata ginaar 2500 lay jar nga am ginaar sa kon lan la leen nit di jaay ba doo ko wax dëgg Sénégal buñ jaayante nañ wax dëgg bala na dellu sa ñamu doon àndal di daan mu woo leen waxtaan ak ñoom seen saal lan moo leen métti si man ñu ne ko demal contact ba xam contact du ko may mais bala na la waxal te yàlla tax rek ñaata jour la contact du affaire bi du bëri wax de mais na la waxal yàlla rek ñaata jour la contact du la wax 20. kon da ngay jàpp ne daal Balla Gaye préparation bi dafa des bu baax a baax. waaye Balla mu pare Balla mu pare benn yoon lay ngëb suuf si dal sa kaw. Balla benn éperculé boo ko mosaane encaissé ndox mañ la njëkk a seen kër moo lay romb barke yonante bi benn éperculé baala boo ko mosaane ñam ndox mañ lay njëkk a suy moo mi romb mais xoolal Balla Tafatine Tafatine benn coup rek la am si Balla xoolal bopp bi jug yaa ngi siifur. boo jeexal làmb ja. def nii di ko def nii. boo jeexal làmb ji boo mënee fatt ay ay turu kenn dootu la daal te jee daa mën a fàttali turu Serigne bu la neex demal. mais damaa gis euh, bi bi booy ñang bëree ba noppi. ay Aziz Ndiaye ay ku ci mel ni Balla Gaye ñu ci bëri génn ne dootuñu bëree ak Boy Niang ndax Boy Niang dafa jógee ci ay défaite duñ bëree ak moom. mais ñu gis ñu tontu leen ki ci mel ni Père de Gaulle génn wax Balla Gaye gën a neex daan ci mbër yi. Balla Gaye gën a cuune mais est ce que cuune boobu de di wax est ce que Balla Gaye ko démb. qualité am rek xam ne biscuit du dem si soos. biscuit dem si soos. mburu tamit ñaar lay bañ. poson asib leneen loo def si mburu mburu dem Balla mburu la. baala moo fi entraîné ba mel ni waay pokolin ñu ne du wér bi mu amee Modou Lo daa dem ñëw ñu ne baala guy gi moo fi entraîné moo fi naani ay bëggoosam ba mu ne jàpp biñ demee réunion dañ ko ne tant que numéro ni baala doo baax bi mu ñëwaatee contre Siteu lu leer la wone te ñun ñii ñoo ko doon wax dëgg googu Balla ko ko waxul demal tel fee nga nekkoon. da ngay koy jay mais ay coppet yoo xam ne ay jaaro la ñuy takk fii ay bënni làmmeñ ay ñaaxarañ ay rosa ay ñaaxarañ loo ay génne ay coon si ay facebook ngay teg si suñu cumikaay gi di ko jox ay bisik loolu di nga daan lan ngay bala Balla Gaye moom mi nga xamante ni seen bër la woon ba tey seen bër la uh-huh. mais ñu gis démb ni mu bëree neexu leen lan nga koy wax no démb Balla li ma koy dolli mooy na demaat xool ña mu àndaloon di daan ku si manqué mu dem jëli la te xam ne Balla ñun dañ kaa bëgg waxe wuñ ko si ay muy mer ak yooyu noonu kenn ku ne da ngay ñemee féete man munu ma yafal nagu jàmbur man géejawaay laa judd géejawaay laa yor géejawaay drapeau géejawaay laa yu béyee mbër yëpp samay waay lañ amul ku may fiy def lu ñaaw parce que ëllëg du añ du reer mais lu mat a la sunu àdduna bi ñun ñoo ko bokk nañ ko defar lu si nekk ñu wax ko Balla na delluwaat si ay masuwaayam gën a defarwaat boppam dellu si meeram dellu si ay ñëram ñu ñaanal ko mu woowaat waa école bi booy yi gis seen bopp xoolal yow nan ngay bokk ak Balla Gaye écrit ñu ne la mos ngaa gis baala Gaye si entraînement bi nga ne déedéet loolu du defet nga contact yi seen kër ba wàcc ñu ne la baala si préparation am nga ne gisuma ko te ngeen bokk écrit loolu waroon naa may boo yooyu bës boobu sax ñëw école samp waaw di jàppanteeg ñoom booy di si am plaisir maa daan baala gay si contact rek am na lu muy def booy yi mais Balla est-ce que defu nañu loolu Balla moomuñu. mais démb ma gis kii di Eumeu Sène dugg si ci stade bi. waa géej Géejawaay yuux ko sànni ko ndox saaga ko mu bàkku roof leen caxabal bi diggante Balla Gaye ak Eumeu Sène. waaye kooku di ndaanaan Eumeu Eumeu boo ko bañee bañ ndaanaan bi muy affronté Bombardier ñëpp ne du si jëlee dara si defet la jóge mu affronté Bombardier jël fay ku wàcce ko daan ko si lu leer bi muy jëlaat Balla Gaye ñëpp ne Balla Gaye koy daan moom Eumeu mu ñëw dëggal boppam Balla teg gauche mu teg droite. te eh, combat boobu Balla Gaye def na ko boo jëlee xam naa sama tànk yi nga jëm waaye boo ci duggee ma mbot la mu ne ko ba ma mbotee jeexal la. waaw ma mbootee dootoo mboot te ba mu ko mbootee xoolal loxo bi la def nii jiyee ko comme genre jaar affaire bi rës si ginnaawam la ko féete ñaari yoon la ko soññu ku sa waay jébbalu mooy yoon noon la combat bi demee. mais Balla Gaye ak Eumeu naka nga xalaat ne noonu la Balla Gaye mën a bëre ak Eumeu mën cee génn. si combat bi dem entraîner ñëw ko école contact Balla bu contactee wér Balla mu wér non. yow baale mi nga doon xam ak baale bi est-ce benn la nañ waxante dëgg rek baale yi ngeen doon xam ak baale bi benn la kon ña ko defaroon ak ñi koy defar nii est-ce que bokk nañ baale na xool ña ko defaroon mu xool sax gis nga ni nga doon def di gagné di gagné ba ñëpp xam la boo xamul noo jëm da ngay delluwaat fa nga jóge woon. ñu ci bàyyi ñooy naan euh, waaye juróom mi wàññeeku est-ce que amul lu mu lu mu manqué ci Balla Gaye. waay am na lu mu manqué gis nga kilifa kilifa la mais du moom dong la mu waajuram wàññeeku ndax am déet am na ñeneen ñoo seen waajur wàññeeku nañ te ñu ngi liggéey seen i liggéey yàlla mooy dogal loolu waajuram li mu dund dund na ko neex na fekk nañ njariñu doomam jëndal nañ ko oto jëndal nañ ko leneen am na ñoo xam ne dañoo judd gisuñu seen yaay gisuñu seen papa bu xoolee si ñooñ day muñ parce que lépp lu la yàlla teg da nga koy muñ loolu nañ koy kulus ne te xam ne kee dem na ba pare nañ ko ñaanal jàmmam mais Balla moo war a xool lan moo koy arrangé mu def ko bu dee bàyyi ngemb moo arrangé ñun ñu toog si victoire yooyu mais ay ay ay éliminé yoo xamante ni gaañ xoola lii nii bu dee noonu lay jeexale mu teel a bàyyi moo koy gën waaw mu am palmarès bu rafet ñun bu may werante man a werante du rafet mais léegi damay werante ba si yaa gaay ne ma yow mu revanche moom mënoo ko. te nag Balla Gaye li ma ci gën a jaaxal mooy revanche yi mu jël yëpp da koo ñàkk. benn revanche la gañe muy contre euh, Issa Pouye à part Issa Pouye ban la gañe te te yee muy jëli ne revanche ak fawaat Eumeu Sène bu ko daanee trois fois fu ñu jëm lii mu wone nii est ce que daan na Eumeu xamaguñ de. Eumeu Sène daan Bombardier si barki Demba Ndiaye. daan Balla Gaye ñaari yoon bu ko daanee ñetti yoon ñun Guédiawaye fu ñu jëm. Modou Lo nag lal na basang Pikine waaye tey la basang kay laalee ko wala mu bënn ndax borom bitigu mbagg boo xotti dënn ba magasin nga fay fekk xale màgg na mbiskit du dem si soos waaye mburu ñaar lay bañ ama bu takkee jóg cim kontaan naa waaw yow